muy 41 jours. damay désinstallé wu TikTok suma téléphone. mais nag am na ko yor suma compte léegi léegi dina def ay vidéo gi. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars Ahmed Cissé nee na day bàyyi TikTok ba le 3 septembre nee na baatin bi da ciy tooñ da ci di ci fayu. léegi nee na ñun lay fayanteel le 3 septembre lay ñëwaat sëñ bi bul daw bul daw tiktok bi nag sa bor lan la fay rek li nga doon def doomu nit ñi di ko def doomu jàmboor yi moom lan la fay nee nga baatin bi danga ci mën boo mënee defar suñ koy yi mu soo mënee suñu fi ni dayee na ñëw ci kanam weccoog koy bi koy bi dem ci tun gi loo mën defal doxaan nan sa ndey ba nga ne da ngay génn tiktok bi dangay ngay def def léegi ñun nga fiy fekk li nga nekk sénégalais yi ci bàyyi régler rek wala ñu tegal sa ndey point final ciao